alhamdulilah alkarim silmilan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saahani li watani bihi nafa ma anfani li bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa yi si waat ci numéro 1613 bi awnillahi wa tawfiqi nekk ci weeru rajab di weer woo xam ne na jullit yi gaaw profito profito fàttaliku ci xew-xew bu rëy boobu nga xam ni moo jur tey jii jàkka yu bari ak jumaa yu bari yi waaye jural ëllëg tuyaa ba yu rëy yoo xam ne nit dina laaj boroomam fan la ma toppe mu ne ko ci weeru rajab ndax bis yoo ca wooran moo tol nii ci aw yiw di fàttali mbokk yi ci gimaas ci jullit yi da war a daje ci kolobaan ci place de la nation ngir ñaawlu mbiru homosexuel bii nga xam ni LGBT mu seen programme boobu ñu bëgg ñu arrêté ko te fa ñu koy arrêté ma ngay tàmbalee ci ñu criminal criminaliser wàllu nguur jigéen sunu état yem rek ci ni euh, acte contre nature bi nu waxoon ci 1960 ñun ca la ñu yem te loolu mbokk yi dafa doyul parce que programme LGBT dafa gën a yaatu acte contre la natalité acte bu fekkoon lañ ko leeraloon muy tekki euh, LGBT kenn du wax dara waaye bokkuñu léegi dafa tuuti lool te bu dara nekkul ci biir mbokk yi nëga ni jàll na bu yàgg ni bi ñenn jógee bëgguñu ñu criminaliser wàllu viol ay jigéen ñu fekk leen ci wàllu càccu njur mi buñ ko bëggee ñu fekk leen ci ok kon juddit nag moom lii yenn juddit yi wax dañuy wax ne ñoom dañoo jaaxle ndax buñ gisee yi imaam ñi ngi ne ci kaw min bari di wax ni euh, wàllu góor jigéen gi nañ ko criminaliser ndax mooy moom moo koy faj yeneen imaam ña ngay toog ak président dem ci àll bi ci biti di wax euh, li fa nekk baax na yenn boroom xam-xam yi am ay position mel ni ku mere waa ànd sàmm jikko yi waaye jullit bi moom ñun ñëpp kenn ku ci nekk yàlla jox na la ab xol jox la mu xel ñaar yooyu nag lu muy jariñ nga di ko jëfandikoo waaye bala koo mën a jëfandikoo nag nga xam sa diine nga xam dara ci sa diine boo xamee dara sa diin rek dinga nga xam dara ci suñu boroom te di nga am dara ci ngëm yàlla ngëm yàlla googu nag moo lay niital mooy làmp bi nga xam ni ak leer la ci lëndëm gi nga nekk moo lay mën a liit niital moo tax bu ñuy jàng nit ki ñu koy tàmbaleel ci buntu tawxiid wéetal yàlla xam yàlla ndax mu xam ne moom ab la boo xam ni lii la yàlla bëgg ci moom moo tax mu wàcc ko ci kaw suuf Euh, jaaxle nag matu ko ndax lu ñëpp ànd cent pour cent loolu yàlla defulu ko boppam yàlla deful boppam ñëpp ànd ak moom moom yàlla subhanahu wa taala wala yaasu billaahi ci juyoo ak ak ak ak ndigali suñu boroom ci loo tey yàlla musal ci loolu aduna dafa am ay intérêt ay njariñ yu teew yoo xam ni ñu bari moo tax ñuy wax ñenn ñi fu ñu teg seen bopp ci wàllu ak xam waaw gën a xam nit ñi moo tax ñuy wax eh, bu fekkee nag jàpp ni yaa gën a xam tax nga wax wala njëriñ lu teew lu ñu lay jox moo tax nga wax fexe ba dund yow noo dunde rek ñooñu nag luñ mën a ànd ak ñi nga xam ni eh, ñi ngay wax waaye ñi ngi góorgóorlu yàlla rek moo tax ñuy wax waaw mbiri du mbiru man Euh, AFP la wala APR la wala yeewi askan wi la déedéet mbir mbirum li mbirum nit ñi la mbirum nite la wala ngóor jigéen mbirum nite la dafa weesu sax mbirum euh, jullit bi rek la déedéet nit ku normal am na réewi jullit yoo xam ne dañ koy criminaliser te jullit yi ñoo fa gën a néew gën a li jaaxal nit ñi kay ak lu wees kay jullit bu jóg di défendre mel ni ku leen défendre daal ndax euh, yi ñuy wax lu lay mooy ànd sàmm jikko yi lii ñuy xeex lu tax ñu bàyyi fii yenn jikko yi daal di xeex benn bii te loolu xam nañ ne wax la joo xam ne dafa dëng sax junni yu bon nekk fi euh, nga ni damay sàmm jikko yu baax yi ne jikko ji yow fasoo yéene bàyyi dara waaye fokk am foo gën a feesa foo tàmbalee nga tàmbalee fenn ñu lu tax nga tàmbalee fenn nangu naa nga wàññi génn fi jikko yu bon yi waaye lu tax nga tàmbalee fenn nanga ma ngi fi nanga ngi fi yooyu moom du waxi dara du waxi dara du waxi dara yàlla musal ci ah, wax te wax ja ah, wax ji doon wax joo xam ne wax dëgg yàlla lu tegtaloo ay alquran wala xadis waaye day tegtaloo gis-gisu ki wax rek mu mel ne nag mbokk mi da doon ñu waxtaan tuuti ci al isra wal miraaj bala muy ñëw suñu borom subhaanahu wa day moom mi nga xam ni <clears throat> moo wax ni ah, subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa sunu borom boobu nag mooy yónni yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waaye par ay étape muy wàccee di yónni Jibril lislaam am ay ponkam yoo xam ni sunu borom yónni aleyhi salaatu wa salaam at yu yàgg te julliwuñu at yu yàgg wóoruñu at yu yàgg ayuñu at yu yàgg joxewuñu asaka lu ponk bu njëkk bi rek mooy ngëm rek seede ni yàlla yàlla yonent bi sallam moom mooy yonent bi waaw ah, daanaka fukki at yoo xam ne loolu rek ay ci lay wàcc nga xam ne kon gis nga ngëm yàlla léegi bu nit ki xisee gëm nag dina yomb ci moom nag eh, ki mu gëm mu jëfe ay ndigalam te ki mu gëm xam kii li mu àttal mu teg ko ko mooy jàll jëlal wa ak sa kamaal kon sunu boroom lii ñuy wax politik muy joxalin ci moom la jëkke ci moom la jëkke keroog ba mu génnee xaaru ira moom yonent bi alayhi salaam di ñëw di wax am ak jaaxle ci moom ndax lim gis te musu koo gis lim yëpp soxnaam si di ko dalal suñu yaay Xadiija buñ ko noonu yow la xew mu ne yàlla damaa yónni nee na tey tey tey na ngeen tàmbalee julli na ngeen tàmbalee woor weer wi ñëw na ngeen génn seen asaka mbokk xam ngeen bokkul ak nii ko suñu boroom doxale ñu gëmee ba yàlla saf ci ñoom sàpp muy indi par benn loola moo lay wonal ni la kon julli mii nag daa bokk ci juróom yooyu te moom mu nekk nag keno bi yenu mbaar mi nga xam ne ku ko daaneel mbaar mi daanu ku ko taxawu mbaar mi taxaw yal yàlla bokk ci ñu koy taxawu faw faw faw waaw waaw eh, su ko defee nag kon am na ñoo xam ne ñu ngi wax lu jëm ci wàllu al isra wal miraaj ndax ginnaaw dajji lislaam moo leen tax a jóg bu ñu fexee ba ni nit ñi gëme ni yàlla moo riñaane alayhi salaatu wasalaam digal ko julli juróom riñaan ga amul buñ ko gëmatul léegi duut ñu gëm ni kon léegi julli am na ñoom moo tax dañuy sonn lool ci laaj ji al isra mi miraaj fii am na seen benn Sénégal boo xam ne yàlla yàlla jéggal ko ndax nee nañ ab seetaan nañ ko muy def benn waxtaan ci daj ji al isra wal ci lool waaye ma yërëm ko lool di wax ne daal li arab yi wax ni al junoonu funoonun daal maanaam ak ndof daal ay xeet la waaye da ci am xeet yu kenn mënut a faj wa minal funuuni maa laa yusfaa moo ci am te kat kooka dafa kawe lool ci njàngum na salaan ndax nee nañ mook Senghor rek ñoo am li ñu am ci ay lijaasa ci Afrique waaw mbokk yi kon euh, jullit bi nag moom moo war a moom moo war a sàmm ngëmam ba du def rek lu jóg rek mu jaaxle ca lu mu dégg rek wuutee ak lam xamoon mu jaaxle ca bu ñu ko critiquer jabolisu ko rek mu jaaxle déedéet déedéet dayam foo yóbbu sa bopp toog fa yow jullit bi waaw su ko defee nag xaj yooyu di baw ah du tere nag wax dëgg yàlla ñiy jëf di jëf rekk waaw boulevard bi jaar fii ci suñ wet gii à ah, bi di dem ah mbokk yi xam ngeen nii Euh, euh, sangaleñ yi ak ak gunóor yi jaar foofu du tere gaa yi di jaar ci apias bi di dem di dem de te wu ci amul sens buñ jaaree si kaw nga faatu kon lañ dummóoyu lépp loo xam ni ñu ngi koy tasaare di weddi al israhu wal miraj suñu boroom wane na ci kattanam bu baax a baax wane ci iraadaam sañ-sañam machia am waaye wane ci wane ci solos julli aussi wane ci ni eh, ngëm yàlla daal eh, du ñëpp ñoo am chance bi ndax kat ñi ëppoon bi ñu xëyee alayhi salaam ni leen ci guddi gi dem na ci baytul maqdis weesu na ko sax ci béréb boo xam ne danga koy dox ay weer yor gileem gileem gu waaxu di dox buñ la nee guddi gi dem naa fa ñëwaat bu xajul xajul ci sa xel ndax danga gëmul yàlla waaye boo gëmee ni faalul lima yurid moom lu ko soob rek mën na ko def alqaadirul muqtadir boo fekkee loolu nekku ci sa xol yow sa xel daf koy daal di bañ koy nat sa xelum kese kese kese rek mu mbirum yàlla moo xam ni euh, wax dëgg yàlla sedd na xol lool lool lool bi nag euh, euh, li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul alim samiul basir ngeen baal ma borom bi tagg na foofu boppam màggal mbirum ay mbiram ngir kàttanam googu ci loo xam ni kenn mënu ko kudul moom ndax kenn du boroom kudul moom mooy ki nga xam ne innama amruhu izaa arada shay'an an yaqula lahu kun def ci guddi googu moom dong dong dong dong moo ko man ba léegi nit li ñu koy wax ci wàllu xarala geeg yëpp yëpp ba léegi nit mënul lu jige loolu mënul lu jige lii alayhi salaam defan ci guddi gi ak yee ca xew noonu dem baytul maqdis yenente yi alayhi salaam ya wàcc liggéey mu jiite leen waaw waxuma la sax dekkal nit waaye sos ko sax sos luy nur luy dund sax nit mën na ko ko ba léegi ala kulli ci li yàlla dafa rek ci li ñëw rek di léegi di ci eh, di ci fabriqué waaye eh, nday mbi gi moom mooy yëfi sunu boroom yii ah mbokk yi ku yàlla yi ba nga gëm ko de war ngaa sant bu baax a baax a baax a baax innama amruhu insha arada shay'an shay'an la wax de shay'an lu mu man a doon rek moom du ca sonn de an yaqula lahu kun fayakun day wax rek loola euh, doonal nàngam bu noppee rek loola doon nàngam mbokk yi kii kasanam kenn kenn kenn kenn wuru koo nattable bay wax ni mbir yi gént la woon rek ndax xel nanguwul nangam ak ki nangam ak nangam rek waaye seytaane xam ngeen ni fokk muy dëw yi ay ay nit dëgg yàlla ndax bëgg na la mu waxoon ak sunu boroom ci ñi ëpp ci nit ñi mu ànd ñoom dem sawara ndax comme génne nañ ko ci yërmande yi sunu boroom dig ko safaan ba ndax moo jëfu lu tax ñu dig ko safaan ba euh, kii bàyyi koo ci aadama nag di nit rek ku nekk bu sañoon day ànd ak yow yóbbaale la fa mu jëm wala iyaasu billah ku nag am amul ngëm yàlla ci sa xol boobu nag wal iyaasu billah kon jaamu yàlla yi yonent bi aleyhi dem na ca kaw indaale julli diyaale ak boroomam subhaanahu taala mu boole kook arwaahul anbiya ak seeni jëmm ñu dajeeg moom ci guddi googu ñu lalal ko tapis rouge mu ànd ak jibril xelam gën a bu baax a baax ndax jamono jooju fekkoon na ko muy jamono joo xam ni ñoom gën na la miin ñu laa ko dimbali tàggoon ak ñoom suñu yaay Aïcha ak maam moomu ko yaran suñu gën ko jox nag daraja gën ko jox nag xayma mu gën a féete kaw lépp luy nit ak jinne ñu mu farataal ca moom julli juróom muy liñ doon waxtaane ni na salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar muy julli koo xam ni boroom bu koy def xol bi xol bi da koy def ngir yàlla subhaanahu wa taala sippi loxoom ci lépp ci mbirum àdduna muy julli julli googuy dindi ci nit lépp luy munkar Euh, gëm ni fardu ay ni la kenn mun koo defaale kenn gëm ni lum ko fekk julli moo gën a yitteel loola lu dul faatu lu dul faatu rek bu la ci fekkee danga koy bàyyi dem faatu moom bu jotee boo doon julli sax dangay bàyyi julli ko daal di faatu boole gi muy boole euh, adduna yépp juróom yoon mànkoo nañu dinañ am audience ak seen boroom jullit yépp ci àdduna genn jaamu yàlla googu rek moom lañuy ñuy defandoo noonu asaka ku ne da koy defal sa bopp mën nañ ko bañ a yëg sax waaw waaye julli moom gis nga ko dañ koy noddal di ko liqaamal wutal ko imam wutal ko ay birëb yu ñu koy defee rek loolu kon bu ñëwee nag ci weeram war nañoo sant suñu borom bu baax buñ yàlla mayee du ko fàttaliku mu mel ni kon waxtu yi day jot den ci gën a ci isra wal mi'raj noonu def euh, tamxit bi rek di ñu ñëpp di euh, sàkku ci yéen nag ngeen ñaanal suñu maam Muxtaar Gay ci Daaru Gay wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan alastighali bi furudin wa sunan sakartuhu lian qad sahani liwatani bihi nafa ma نفني